ci ci ci wàllum connexion bi association des éditeurs et euh, professionnels de la presse en ligne ñoom euh, ñaawlu nañ ko bu baax a baax te euh, sàkku rek ñu jël ci ay jéego ci ci nu mu gën a ndax ñoom seen seen liggéey tënku na ci li nga xam ne moom moo jëm ci suñu xarale yi jeexalee xibaar yi ak suñu naataango taskatu xabaar yi nga xam ne ñoom ñooy wàcc ci terrain bi ngir amal seen liggéey fi mu ne surtout ci jamono ji ay jafe-jafe képp la ñuy am ngir mën a amal seen liggéey ci ci terrain bi kii di Biram Xari Ndaw jagleen leen ab reportage méccam tasum xibaar foog nga bëgg ko doog ko mën def ak jafe-jafe yu tar yi taskatu xibaar yi di jànkuwanteel ci terrain bi ñoom ñi lee bokk ci benn kàddu. Ah, li ñuy daj fii moom mooy daw bu metti rek. ak euh, peut-être euh, manque collaboration yu force de l'ordre yi parfois ñoom tam du ñu yombalal liggéey bi parfois dañu bëgg a teg ci espace bu ndaw ñu bëgg fa taxaw def ay interview euh, ñi ñu war a interviewé suñu ñëwee parfois sax du ñu am ay image yu baax. pour ñu mën a amal suñu liggéey maanaam dem uti xibaar vérifier ko tas ko jox ko askan bi dañ ci am dañ ci jànkuwante li nga xam ne rek moo di jafe-jafe je pense que loolu également ça colle avec li nga xam ne moo di métier bi xam ne choisir nañ ko. ñii di yëngu ci tasum xibaar yenn saa yi waay manifeste yi dañ di faral di congu. gis takk der yi itam di leen faral di gaañ ku ci mel ni béy di ndaw di cadreur ci Sénégal mës nañ koo dóor grenade lacrymogène comme ni ngeen koy gisee ci yële image. gars yi da nga leen di gis partout dans Sénégal da ngay dem ci làmb ji dem sur le terrain nga gis cadreur yi. situation bi ñuy dund. donte méccam tasum xibaar bëri na ay risque lool te itam payoor gi taxu koo demee noonu ci réewum Sénégal bëri na ñu si nekk ndax dañu ko bëgg. bëriwul xaalis suñuy ñëw fii peut-être di ko def da fekk euh, benn métier la boo xam dañ ko bëgg euh, passion la suñu ñu ñëw di ko def dañuy bëgg di ñëw sur le terrain di fekkee affaire yeeg yooyu noonu mais nag gisuñu ci daal loo xam ne war na mën a tax am na yeneen liggéey yoo xam ne ñu ngi fi yoo xam ni moo gën a fay journalisme. fàttali jéego yi nga xamante ne ñoom taskatu xabaar yi ñu ngi koy def ngir mën a jox askan wi xibaar yu wérte te wóor yi la jeune reporter di sàkku ci état bu Sénégal mu gën leen a taxawu ngir ñu mën a liggéey ci nu mu gën a muccee ayib. Birame Khary Ndao ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Birame mu nekk jafe-jafe yi nga xam ni jamono ji eh, ñi yëngu ci ci métier am tasum xibaar ñu ngi koy jànkonteel. waaw bon euh, les risques du métier. Mm-hmm. Euh, mënuñu nekk ci. police dañuy am jafe-jafe gendarmerie dañuy am jafe-jafe politiciens yi dañuy am jafe-jafe magistrats yi dañuy am jafe-jafe comme médecins yi c'est tout à fait normal taskatu xibaar yi am jafe-jafe mais na wàññeeku wàññeeku bi mooy kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo ngànk taskatu xibaar yi ay SYNPICS ay euh, euh, CORED ay appel ay yu mel noonu ñoom nañu gën a protéger taskatu xibaar yi mais police gendarmerie force de défense et de sécurité nañu yombalal également liggéey bi taskatu xibaar yi mais ci yombal boobu xam naa ni dinañ leen ni dama ko yéeg te du mu ko wàcce ku mel ni Tunkara. ñu dem mhm. jàpp ko dugal ko ci kaso bi ndax bokk na ci ñuy nësaxal taskatu mhm. xibaar. Mhm. bu ñu ñëwee naan nañ leen sànni ay cocktail molotov fu ngeen tasee ak taskatu xibaar sànni leen cocktail molotov euh, Tunkara je répète c'est kii ba war a def appel au meurtre à des journalistes état du Sénégal mooy responsable ci wàll boobu. d'accord je wax na ko encore une fois. Euh, c'est les risques du métier euh, déjà même boo nekkee en formation euh, da ngay xam ne dañ lay tàggat teel a tàggat ci ni mel mais quand il faut le dire euh, mën nañu moytandiku yenn yi encore une fois pour mieux protéger les journalistes parce que comme ni ñu ko waxee keroog même en temps de guerre da gis les journalistes sont mmh. beaucoup plus en sécurité mmh. euh, par ak ñi nga xam ne peut-être ñoom ñooy euh, waa waa parce que mmh. personne du leen attaqué donc tey jii bu ñu demee ba Sénégal ñuy gis parfois des reporters yoo xamante ne ils sont victimes d'attaques ils sont victimes d'accidents quelque part donc loolu bon entre guillemets accident de travail mais loolu encore une fois c'est des yoo xamante ne war nañu ci taxaw te comme ni ko Birahim waxee je confirme encore une fois cette mhm. situation là muy que euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo booloo maanaam kuréel yi nga xamante ne ñoom ñoo taxaw euh, pour sàmm seen àq ak yelleef ñoom ñoo war a gën a taxaw euh, jox leen gëdd ba ñu mën a aar wala sax li nga xamante ne ñoom ñooy les reporters qui sont sur le terrain. d'accord Mansour. média moom toujours bu nekkee média propagande. Mhm. wala mu nekk média. buy manipuler. foog mu nekk ñax gu wow day lakk-lakkaale gu tooy. boo demee sur le terrain ku nekk nga fay dajanteel. dama toog samedi jékki-jékki rek am ku ni am ku wane benn pistolet ak photo général Moussa Fall. mu ubbiwee mu ni Moussa Fall jàpp nañ ko léegi léegi mu ngi daw laxatu benn camp militaire mook ay famille am automatiquement bi ma ko bi ma koy xool parce que dafa dafa na genre direct mu ngi nekk ci cent personnes yu koy seetaan. ma génn génnaat ñëwaat même pas une minute de ma génn ci page bi duggaat fekk mu nekk ci 7000 yu koy seetaan loolu média la mais loolu du média loolu manipulation la propagande aussi nga ñëw ci média nga ñëw ànd ma dem sur le terrain ma ni policiers yi fi ñu nekk Ousmane Sonko du yoon bu ma toogee nii di commenter ji jàngat yëf yi de façon très dal mun naa ko mais boo demee sur le terrain da ngay wax juste li nga gis pour bañ a nekk média wu propagande mais le fet nga commencé joxe sa appréciation waruñu jóg waruñu nekk bunt kër Ousmane Sonko loolu jaaduwul Al Jazeera amul chaîne de télé bu ñu koy méngaat leel Afrique waxuma la ak Sénégal Al Jazeera seen benn reporter daaw bi mu fàttee pal israélien ci lépp lu palestinien yi def ñu gis ko ci àdduna bi yëpp ndax Al Jazeera dañ ko rey Biray mi ngi koy fàttaliku. man dama ko xamoon parce que euh, ku ma doon topp lu bëree bëri bëri la deewam daf ma daf ma laaloon. mais da ngay xam ni loolu moo nekkoon euh, pexem gouvernement bu Israël pour ñoom ñu mën a wàññi ni ñu leen toppee parce que demoon nañu ba def defu israéliens yi tasoon ci àdduna ba finalement mu commencé woon di répercuté wu ñëw ci seen gestion réew. loolu day dëggal li sa nga wax ni risque métier bi la mais lu mun nekk nekk risque métier bi. toujours day del moytandikuwaale émotion di la yóbbaale. c'est ça surtout. mën euh, ñun ñëpp doon nañ dem sur le terrain. comme ni ko Birahim waxee mais même génération boobu Birahim man Omar ñi nga euh, Balla Pereira Jean même génération boobu noonu. néew na ku ci nekk victime. te du ci accident nga ko amee woon. parce que jamono jooju ni métti mi mel tey jëkkante fii nii def loo xam ne nitewul. Euh, dool laaj kilifa doo laaj koo xam demeewul woon noonu parce que ñi ma ko sax boo ñëwee say kilifa say supérieur ñoo la jëkk a sanctionné ci rédaction yi. je me rappelle je donne un exemple bi may def revue de presse RFM mus naa mus naa wax maître El Hadj Diouf ma ni ma ni ma ni avocat bu neex làmmañ bi yokkaat na ci ni mais le fait ma jëfandikoo baat boobu mu woote samay supérieur boole ma ak ñoom mais dama jël sanction. loolu def ma servir leçon boo xamante ni toujours bu may bu may wax ci nit ki. dinaa xam fan laa yem ak moom bu may commenter dinaa xam lu may commenter mais nekk sur le terrain aussi di dem ak émotion maa ngi ñaax sama mbokk yi di métti lu journaliste boobu nekk Séné Sénégal te gaañu woon ñu ngi koy massaw journaliste la ku yaru la ku xam ni muy def la mais mooy li ma junj ci sama njaal benn ni ñax gu yu wow yi ñooy lakkaale yu tooy yi malheureusement journaliste bi nekk di def liggéeyam normal mooy nekk victime mais ki def njombe gi tax euh, réaction am en général du nekk sax journaliste benn téléphone am la yor taxaw ci benn terrasse am zoom ay image am di wax li ko neex malheureusement. et pas seulement sur le terrain même sur les plateaux. même sur les plateaux ñi présenté ñi nekk ci plateau yi yenn saa yi tamit ñoom ñooy yokk xar mi karaw. si si parce que émotion bi kii di wax euh, Mansour yenn saa ñu waxee ci émotion. yenn saa ñu commentaire loo xamee ni nekkul seen rôle ci instant yooyu noonu donc loolu je pense que c'est c'est c'est le moment aussi pour. Euh, presse bi ñu mën a xoolaat seen bopp nañ ko.